seetlu nañ légui dama am classe léegi damay bay ngeen wax ba ba doyal. ma dogu a avec personnalité et maanaa raffinement. wol hein? ma kii bi. kan sama sama euh, kii mamar mamar indi leen ma chargeur. mamar kaa leen kii jàppale téléphone Bachir sa téléphone bi. luxe na non sa téléphone bi luxe na pour un un un. pour un chômeur pour un chômeur mais je suis pas chômeur nak malheureusement c'est ça que les gens ne savent pas. mais mais mais tu es quoi. Moi, je suis consultant, je travaille. Ah. non, il a créé une agence. Fafana consulting parce que après il faut nga def kii bi nga yónn ma ma kii ko fii euh, ba pare nag lool lool tamit benn annonce bu ndaw la pour euh, euh, gars yi ñuy seetaan ñi nga xam ne bu ñu bëggee expertise wu Bachir Fafana ngeen woo Bachir hmm. dëgg-dëgg mu tëggal leen plan de com bu baax a baax hmm. ànd seex ñu am maanaa te ñun dañuy sot lu Bachir dugg ñu loolu dañ ko joxaal noonu rek euh, euh, en passant léegi nag euh, beneen bi tamit mooy fan yii yëpp mm-hmm. ma ne sama analyse bi ah. kii duudu duudu nëbbal sa téléphone bu yàq sa tun der non non non duudu cache ton téléphone que je ne saurais voir waaw léegi mun yàq der ak mun a mun a def contre-feu ak diversion man ba ngay analyser yàqalu ma la ma bëgg a dugg sama analyse nga yàqal ma donc ñu may ma tuuti rek ma ma ma ma évoqué tant yi réseaux sociaux yi le euh, euh, docteur aline Badara Mbacké gis ngeen ko yéen itam. Mhm. waaw donc euh, il naa sax fan la nekati docteur xam médecin district de xam chef district de xaw ah. il paraît que donc je mets au conditionnel hein, parce qu'on n'a pas encore entendu son son de cloche mais depuis ce week-end hmm. ñu bëri ñu ngi ma euh, donc Nini euh, euh, c'est quelqu'un bon qui a tëjlu dafa pas prendre contre jabar ji ndax Jabarji ji qui ko publié menacé woon publier genre photo intime quoi les mais le ce cas là vraiment fait débat sur les réseaux sociaux hmm. c'est parce qu'il paraît que le gars est coutumier des faits D'abord, il, paraît aussi qu'il est très violent envers ses, femmes et tout ça, nanana. Euh, mais euh, ce qui est choquant et ce qui, moi, me choque, moi, le fait que. Euh, voilà, merci Doudou. Merci euh, Wala Sanya. Donc, Kéla, Nuni, euh, dit, mom le porte plainte donc il y a eu un procès Euh, et donc ci ci procès bi euh, ñu ni kii bi euh, ndaw si il paraît que dafa wax ne lu tax mu def rey mu def réaction boobu mooy genre dafa bett jëkkër ji mu am ak ay affaire jigéen ak genre yu mel noonu quoi mais vraiment si qui est choquant te ñi ngi bëgg nañu nag ñu si am ay information yu gën a yaatu ñu contacter waa public pour nous déglu ko bi bii euh, euh, un cas de violence conjugale euh, ñi ngi mangi maa réseaux sociaux ñu bari ñu wone ay photo ndaw si ni ko ji doré yak karam ngeek affaire yoyu de des images super choquantes yoo xamné elle est ensanglantée té il paraît que ki waji ki moy mooy septième jabaram hmm. donc takk di fase takk di fase et tout ça donc des choses comme ça bu bu bu amee ci pénc euh, dafa laaj euh, pour que plus plus plus jamais ça donc euh, ce n'est pas le propos de cette émission mais comme nous on parle de l'actualité c'est quelque chose qui est depuis ce week-end dafa viral té ñu pouvons ay nous lañu nous ne pouvons pas nous mais nous ce dont on a besoin nous bëgg nañu xam euh, euh, avocat euh, ndaw même le gars son avocat nous savons exactement ce qui s'est passé parce que c'est quand même faut le médecin là quand même c'est pas n'importe qui donc le médecin boo savoir que yow da patients, waxanteeg soulager les souffrances et ay douleur bu dee yow sa causes yow douleur dafa laaj nit ñi taxaw ci et tamit femme bi tamit dëgg-dëgg bu dee euh, la ñu ko ñu prison parce que tout simplement elle a essayé de de de riposter euh, à sa propre manière euh, ci violence borom këram wax il faudrait quand même que justice aménage ndax le tout arrestation ak le tout emprisonnement c'est quelque chose qu'il faut éviter dans ce pays ndax euh, contrôle judiciaire mi ngi fi leneen leneen mi ngi fi mais jël jigéen dugal ko noonu rek euh, euh, prison am na leneen lu nekk ci suuf ça vraiment on on aimerait bien avoir plus d'éclaircissement sur loolu léegi nag bu ñu tey ci émission bi mm-hmm. man je ne suis pas tout à fait am na foo xam d'accord naa ngi ñaar seen ana